bismillahi irrahmani irrahim rabbi israh li sadri wa yassir li amri waxlul uqdatan min lisaani yafqahu qawli bokk ñu déglu asalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakatuhu asbaxnaa wa asbax almulku lillah walhamdulillah wa laa ilaha illa allah wallahu akbar allahuma inna nasaluka xayra ma fi atalum wa xayra ma baad wa naudu bika min sharri ma fi aslam wa sharri ma baad wa naudu bika min azabin fi wa azabin fi naar mbokk Sud FM seen rajo ci waxtaani fajar yi mi leen defal fajar jot waxtu wi dellu si nag ci kàttanu sunu borom tabaaraka wa taala jëlam ko defal si ngeen ci ànd ak seen mbokk Alioune sal ginaa bi ñu sant yàlla subhaanahu wa taala ci yonent bi sallallahu alayhi wa ñaan jàmm ci réew mi ak réew jaajëfal alxaaji sëñ Mbàkke silee mi nekkoon ci jataay bi ñaanal ko tawfiix sutura ak teraanga ak poche yi def dara niñ koy baax di defee fajar maas mooy ànd ak yéen ci min kunoo si sunna min kunoo si sunna trésor yi trésor yi sunna li ñu yonent bi dencal ca trésor ba sallallahu alayhi wa sallam te sahaaba yi doon ko déposé moom ay numéro ak yépp nga xam ne ñun ñoo war di dem ca trésor ba di récupérer ak a jël yem nu fa defal ku jëlul nag boo moomeet moomoo ku jël nag yaa moom jullit yépp la ko fa defal képp ko wax ashhadu an laa ilaha illallah wa ashhadu anna muhammad rasulullah am nga carte d'accès boo xam ne sañ ngaa dem ca trésor ba jël ca bii nu weesu ngi nekkoon ci jàppale ko ni ci jafeñ-jafeñ wala jàppale ku nekk ci njàqare tabarakallahu ak tuyaaba ji ca nekk ñëw ci beneen tomb kon ni ñu ko waxee direct sax bu ñu ko dégloo ñetti yoon dañ ñëw ci beneen tomb bu bees bi kon tey mooy tuyaabay leble tuyaabay leble nit ñëw sa kër nela lebal ma nàngam nga lebal ko loolu tuyaa bay leble waaye nag na ngeen xam ne ñàkk fay bor moom leneen la jàng nañ ko ci alxuraan suuratul albaqara laay ju gudd jooju waaye daal fi ne mooy tuyaa bay leble nit ñëw na la lebal ma nàngam nga lebal ko tuyaa ba ja ci amee leb nag nun sunum pénc dañuy jaawale léeg-léeg lépp ak jënd lépp ak jënd lebal ma kër gi bu doon usaa dam jam ak ak docteur Ablaye Ablaye Lam ak ñoom Serigne Babu ci Mbuur ñoom duñu wax lebal ma kër gi saa bu nee ma ñoom xaalis lay doon lu dul xaalis duñu wax lebal ma jaay ma la ñuy wax waaw jaay ma kër gi bu dee oto dañuy wax jaay ma oto bi ñun nag ñooy wax lebal ma xaalis ba noppi naan lebal ma oto lu ma waral ab sew sew am ci lebal ma xaalis jaay ma oto moo tax oto ngeen di waxaale buñ la ko joxee fi ak fukki weer ñaar jëm kaw nga ciy dugal dara moo yaa ngi yaa ngi yaa jënd te fayagoo loolu nag dagan na waaye lebal ma moom xaalis rekk ca war a tege léegi nag nit day jaaxle lool mu sol aw dàllam leb waaye nag penc mi bu dee suñ penc mi léeg-léeg nit leb la nga lebal ko ñàkk xaalis ñàkk nit ko léeg-léeg nit ñëw leb la nga lebal ko ñàkk xaalis ba ñàkk nit ko nguur si ma lebaloon ci wakkaam gisuguma ko ba léegi <laughs> waaw xam naa danaa ko yóbbu tës Ahmed Aïdara waaw lebal lebal ma nga lebal ko ñàkk xaay ba ñàkk nguur sa du noonu de boo lebee dangay fas yéenee fay bu waxtoo jotee te amuloo fay nga ñëw bañ gis la amaana nit ki dégg addis bi weesu ci dimanche ji weesu mu far baal la waaw waaye leb rek tudd ca te ku génn àdduna ki bor sallallahu alayhi wa sallam daawu la jullee waaw daawu la mbokk mu baax dafa génn àdduna ndeysaan ñu ko doon jullee ca Medina rue 22 angle 31 bi ma laajee ay boroom ñu ne ah bori de toll na ci six mille muy muy bori xale yooyu ma laaj ci mbooloo mi ñu dajalal ko ci six mille jox seeni boroom mu nga woon ak liste ba kon nag nanu fexe ba bori ñu bàyyi ci xel ngoog ibnu maaja ak al bayhaqi ñoo génne hadis boobu teg ko ci tegandaay bu wér jële ko ci anas ibnu malik radiyallahu anhu anas ibnu malik radiyallahu anhu kër yonent bi la nekkoon di doxi soxlaam di joxantey salaam maam musaka anas nee na yonent ba nee na anas nee na yonent ba nee na ra'aytu laylata usriya bi ala baabil janna maktuba alsadaqatu bi ashri amthaliha walgaradu bi thamaniyata ashra waaw yonent bi alayhi salaatu wa salaam nee na keroog biñ ko rañaanee gis na ñu bind ca buntu aljanna ja mbind mi mu bëgg wax dañoo bind ca buntu aljanna ca port ba waaw porte principale ba lañu ñu la bind waaw aljanna porte principale ba ñu bind ca lii luñ ca bind as-sadaqatu bi ashri amthaliha boo saraxee junni juróom-ñeenti junni la yàlla jël tegal la ca nga am fukki junni waaw ah, ba saraxee benn junni juróom-ñeenti junni la yàlla jël tegal la ca nga am fukki junni waaw lisaan xaaj Ibrahima Sakho mu ne banque bi yàlla ba dafa amul ah, ay sayiaat maanaam ay ñaawteef nekkoon ku def benn ñaawteef mu tegal la ci juróom-ñeent muy fukki ñaawteef <laughs> mu ne waaye banque ba ay tuyaaba la am mu tax ku def benn mu tegal la ci juróom-ñeent ku def bu baaxut nag mu denc la ko fa ba nga ñëw waaw ku def lu baaxut mu denc la ko fa ba nga ñëw kon yonent bi nee na as bi asri amthaliha boo saraxee benn million ñu tegal ci juróom-ñeenti million muy fukki million boo saraxee benn milliard ñu tegal ci juróom-ñeenti milliard muy fukki milliard waaw moom Cheikh Alxaaji Malik radiyallahu anhu xam naa def na fan yu néew nun ñépp nu takk suñuy mbuus dem wuti wujji ko ndax moo ne yaa xaay sal baxar waaw yaa xaayisal baxar ni ñu wujjee woon barki démb sunu maam jële ca Tuubaa rahmatullahi alayhi wa radi anhu tabarakallahu ci laakin unaadi nun ñëpp nu wuyu ko maam Cheikh Alhaji Malick daa toog ci jàkk ji di jàngale nee na ñu am jenn waaye ju fa ñëw jox ko juróom-ñeenti mburu ne ko jenn jaay yàlla moo ko jox ñiy jàng moo ko dugal ci daar ji moom Seex Alxaaj Maalik ne waa ji demal indi mburu wa ca des waa ji ne ko juróom-ñeent la ma jox mu ne ko ah, kon delloo ko ko mu ne ah mu ne ko waaw wala nga wool ma ko ñu delloo ko mu ne koy bu ci naree def kay mu indil la ko ndax mburu waa nga sama kër maa ko ci teqi woon bàyyi ca kër ga xam nga nit ñi fit wutal fit wutal noonu suñ mbakkee fit wutal ni ñu jox la fukki mburu ne la yëtal siñ bi nga kott wenn sa kër <laughs> seetit ndaw penc mu day waar juróom-ñeenti mburu nga kott wenn sa kër te loolu kat ni muy xewe Cheikh Al Hadj Malick ko demal nga indi ko ndax da ko war a indi fukki mburu yëpp ñu war a ñëw waaye nun loolu ni muy xewe Allahu akbar boo demee ci marché yi am na ñoo xam ne ñu ngi koy def boo demee ci télé bi ñu ngi koy def bu demee ci marché gré à gré yi seen nga tubarkalla niñ koy doxalee léeg-léeg gis ko wax ni ki dañ koy jox mu domp yóbbu këram wala mu donc domp joxul njabootam ba ëllëg yonent bi eh, maam Cheikh Alhaji Malick ne waa ji demal indi mburu mu ne ko juróom-ñeent la mu ne ko ah déedéet des na wenn waa ji nag kon xaar mu indi ko dal koy indi ne ko nag musi lu la xamal ne fukk la ndeysaan loolu la góor ga wax sukk ci kanam Cheikh Al Hadj ne ko mësi loolu la xamal ne fukk la mu ne ko yàllaa joxañ ne man jaa bil xasana fa lahu ashru amthaliha yàlla daa wax ne ku saraxe wenn mburu fukki mburu lañ lay faj lañ lay jox mu ne ko te nag bi ñuy jàng léegi la fi jenn waaye ñëw di yalwaan mburu wa fi nekkoon ma jox ko ko ndax gëm ne yàlla dana ma jox fukki mburu léegi nag bi mburu mu ñëwee laa te alxuraan ne fukki mburu la moo tax ma laaj la benn mburu wi waaw mu ne ko lii nga góor ga ne ko lii nga nu rawe moom nga nu mën a it ci saa waande <laughs> lay ndeysaan kon benn ngoog kon saraxe loo saraxe rek suñu borom tegal la ci juróom-ñeent muy fukk genn musuk tàngal juróom-ñeenti musi tàngal la ciy teg waaw benn xaftaan juróom-ñeenti xaftaan la ciy tegal benn oto juróom-ñeenti oto wenn nag juróom-ñeenti nag boobale ak sa bés muy fukk mu ne nag walla xaradu bi thamaniyata ashara boo leblee nag maanaam tuyaabay saraxe ak tuyaabay leble ndekete boo leblee da nga am tuyaaba ah waaw moom tuyaabam nu mu toll dix fukk ak juróom-ñett maanaam boo sara boo leb nit ab junni fukki junni ak juróom ñetti junni lañ lay jox boo lebalee benn million ñu fay la ah, ñu fay la fukki million ak juróom ñett boo lebalee benn million dafa mel mbokk ngeen baal ma ci njàngale mi mi ngi tudd Ablaye Dia mi ngi nekk ñox si si si Senico je pense que noonu la waaw mooy organiser musaabaqa alxuraanul karim bi nga xam ne mooy dox ci pénc mi te gone di ca génne ba ñoom muntagaa génn caag soxna maam jaaraak ñu mel ni moom soxna ndoomo rek ñoom dafa am génn guddi ma woo sama benn waaye ne ko kaay ñu ànd ma lebi xaalis yàlla ma yàlla yërëm <laughs> bëgg jënd Mercedes te aw ñetti dërëm te kat nit ñaa ngi def ni ñaa ngi def ne Alioune Sall mi ngi <laughs> yàlla na ma yàlla yërëm rek xaw ma fu mëti ñetti pom nekk waaye tubaarkàlla <laughs> mëti ñetti pom mëti trois pom <clears throat> waaye daal ma ne ma ne mbokk moomu kaay ñu ànd ma lebi xaalis sama xel mi daal may jox kenn muy Ablaye Dia dox ndànk àgg këram. ne ko sama oto bii ma yor nii day tàmbalee màggat te oto bu màggat baaxul cib sëriñ oto bu màggat baaxul cib sëriñ ndax dépense bi nga koy jox mooy ëpp dépense bi nga jox soxna yi waaw ma ne ko ma bëgg ñaari million boole kook bi ma yor ak oto bi joxe ndax ma am beneen ndeysaan loolu daal mooy tànk yi mu daal dugg néegam daal di may takkal ñaari million jox ma maanaam loolu ñaari million boo ko joxee nit kon am nga fukk ak juróom ñett fois de dix-huit fois deux boo ko leblee waaw boo lebalee nit euh, ñaari million kon dix-huit fois de professeur ji bi moom ngay calculer waaw soo calculer dix-huit fois de daal di am trente-six kon bi nga lebalee deux millions yàlla ngi lay fay trente six millions te million bi yàlla maa indakum yanfad wa lay baax baaq isaan mu daal may lebal deux million ya may dajale nag fu ma amee cent mille takk dencal ko fu ma amee cent mille takk dencal ko ndeysaan ba am benn <laughs> dem na ko ma avance la bii mu ne ma baax na kay daal koy soppi euh, ak may tabarkalla la kulli xaal damaa bëgg wax rek ne ki la leb xaalis boo ko lebalee benn dërëm bu nekk fukki dërëm ak juróom-ñett lay dikk hmm? waaw waaw kon nag ndekete sarax baax na waaye leblee ko gën waaw ndekete sarax baax na waaye leblee ko gën ci addis bi ñu tiim waaw sas Ababacrine Seck yëmbal ndekete leble baax na waaye ndekete saraxe baax na waaye leblee ko gën ndax léeg-léeg nit ki du jël sarax waaye ku ko lebal mu jël problème bi kay mooy leb ak fay le mi dul def nga lebal nit ma wax wax naa ko sànq nga ñàkk nit ka ñàkk xaalis ba lu tax sëñ Babacar Si radiyallahu taala anhu sëriñ Cheikh nee na danga nga daan ñëw ne ko lebal ma junni mu génne ko ba nga gis ko mu delloo ko ci poos bi ne la mi ngi fi de des koo munta leble day sànn nga naa lu xew mu ne ku munta lebi junni du leble junni kon qaala rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam raaytu usriya bii ala baabil janna maktuba alsadaqatu bi asri amthaliha walxaradu bi thamante ashar yonent yàlla ba nee na sallallahu alayhi wa sallam nun laa koy jàngale gone yi ca jàkk ja yonent yàlla ba nee na sallallahu alayhi wa sallam gis naa guddi gañ ma rañaanee ñu bind ca buntu aljanna buntu principal ba tuyaabay saraxe mooy fukk tuyaabay leble mooy fukk ak juróom-ñett hadis bi mbokk yi oustaz Cheikh Tandian saxiix rawaahu Ahmed wa rawaahu Tirmisi wa rawaahu Ibnu Xibbaan Ahmed nettali na ko ci euh, jukkib ñeent xatum ñaar téeméer juróom-ñeent fukk ak juróom-ñaar. Tirmisi yi nettali la ko ci hadis numéro dix-neuf cinquante-sept Ibnu Maaja nettali la ko ci hadis cinquante soixante-quatorze Albani wéral na ko ca téere ba tudd al Mishka dix-neuf dix-sept xam-xam boobu lañu tuddee xamal nit ñi daraja yi hadis boobu min kunuusi sunna tabaarakallah mu ñëw ci beneen tomb muy lu am solo ci penc mi mooy tuyaabay koor tuyaabay koor ci trésor bi tuyaabay koor daf ci am rawatina weeru koor nekkuñu ci weeru koor nag waaye bind bee agsi ci weeru koor abu hurairata radiallahu anhu yàlla na ko yàlla fayal abu hurairata yàlla na noonu la yàlla na noonu la yàlla fayal waaw war nañ la tuddi doom yu bëri ci penc mi war nañ la tuddi doom yu bëri ci penc mi abu hurairata nee na radiallahu anhu jëla na ci yonente bi alayhi salatu salaam mu ne man saama ramadana imanan wa ihtisaaba gufira lahu ma taqaddama min zambi waaw mu ne ku woor weeru koor gëm yàlla tax ak topp ko euh, bëgg ci moom tiyaaba nee na ñu jéggal la sa bakkaar yi jiitu woon koor gi allahu akbar ñu jéggal la sa bakkaar yi jiitu woon koor gi loolu rëy hadis boobu saxiix la al Buxaari nettal na ko ca dix-neuf zéro muslim nettali ko ci sept cent cinquante neuf hadis bu wér la waaye abu hurayrata nettaliwaat ñu mu ne yonent ba nee na bu sama bu weer koor masaana ñëw bu weer koor masaana ñëw ndax fi bu ñu demee ba 31 décembre ci boor yi huit heures président république yi Sall yàlla na ko yàlla yokku wér yàlla na ko yàlla yokku wér te jàppale ko ci émergence bi ba ba mu émerger réew mi <laughs> ba mu émerger réew mi amin président Macky dañ koy synchroniser télévision yi ak rajo yi mu wax ak xeet wi waaw sénégalais sénégalaise et étranger parmi nous <laughs> waaw làkk lu ay tubaab ndeysaan bis boobu noonu lañ koy defee yonent bi itam bu weeru koor duggee noonu lay def dañ koy synchroniser rajo yi ak télé yi allahu akbar salla alayka allahu ya alamal huda maa ngi ci min si sunna yonent bi jël kàddu télévision yépp jël ko bu dee bu président Macky télévision Sénégal ñoo koy jël en direct bu dee sallallahu alayhi wa moom télévision yi adduna ci yëpp waaw ñoo ngi koy ñoo koy synchroniser mu def benn xutba boo xam ne bii une universelle la je pense que noonu la professeur ji bi benn xutba international bu koor gi duggee waaw acca mu ne bi mu toogee alayhi salaam ñëpp di seetaan mu nuyunu ndeysaan xam naa bu ñu xam nun ñëpp mu ne ataakum shahru ramadan shahrun mubaarak farada allahu aleykum siyaama tuftahu fiihi abwaabu sama wa tuxlaqu fiihi abwaabul jahim wa tuxlaqu fiihi maradatul jaan shayatin ngeen baal ma lillahi fiihi layla xayrun min alfi shahr man xurimaha faqad xurima xayruha aw kama xaala oustaz Cheikh Tandia discours bu gàtt la yonent bi def bi weeru koor yu duggee ñu synchronisel ko television yeeg rajo yi monde bi yëpp di ko jël en mu nuyoo bàkk yàlla tagg ko julli ci boppam daal ne weeru koor delsi na di san allahu akbar weeru koor delsi na waaw gis jàmbaar yëpp fas ko yéene woor waaw ndaw ku naan fun jëm <laughs> mu ne weeru barkeel waaw weeru barkeel barke mooy nga am dara mu jëriñ lu bari bi mu nekkee ci xaalis soo masaan yor junni dangay jaaya jaaya jaay waaw fi ne xaalisu Dakar xaalisu càllee ko gën a barkeel xaalisu Dakar xaalisu ndànd faal gële moo gën a barkeel moo tax fonctionnaire yi nga xam ne ku leen affecté ci région yi ñu dellu si dakaar li ñuy def xamuñu ko médecin boo dee yóbbu ci ci région yi mu ñibbi si ngeen baal ma yéen médecin yi enseignants koo ci def ci ci région yi mu ñibbi si ministre yi ñoom far am na ñoo xam ne xamuñu de xamuñu Sénégal am na ñoo xam ne xamuñu Sénégal ma wax la ko tey waaw léegi nag xaalis ba ngay am foofa day barkeel ndax la ngay jënd la muy jar ne fa te jënd ko day yomb loo loo am dem waaw ndax bu keccax ci càlle day dàq léeg-léeg ceeb bu jën ci dakaar ci waxin mu ne leen kon weeru barkeel la waaw mu ne weer la woo xam ne bu dikkee yàlla daf ko farataal ci yéen pour ngeen woor ko waaw ñu ubbi bunt ñu ubbi bunti asamaan yi tëj buntu sa sawara tënk seytaane génn guddeen ci goo xam ne gi moo gën junni guddi ku ñu ko xañ xañ lañ lii wuréy bu leen ko kenn xañ mi ngi ñëw yàlla ñu fekk bi demaat yàlla ñu fi bàyyi mbokk yi teg leen seen baaram foofu ñaan borom taala may ñu déglu ko ñaar yoon ba ñetti yoon indiwaat ci bind bu bees jërë ngeen jëf sunu mbokk yi xëy ci xibaar yi ñu ngi nii tax yor seen i kayit bëgg leen a fiñ fàncal xibaar yi ci tubaab fiñ fàncaloon ko ci wolof ñaanal yàlla ñoom ak yéen ak suñu technicien nga xam ne mooy sànni wax jaww ji bu waa kub kub mën koo dégg yàlla yàlla defar seeni mbir defar suñuy mbir ci def ci suñuy poste dara te suqali suñu sponsor yi C3S bii tabarakallah nga xam ne bi daay jàpp te du bàyyi mukk insha allah ak tàngal bi ak pënc in uridu illa l islaha ma tataatu wa ma tawfiqi illa billah wassalaamu aleykum wa rahmatullahi wa